dal leen ak jàmm ñu xëy tàqan yéenekaay xëyndoo tàmbale ko enquête yéenekaay dikkaat na ci grève yi nga xamante ni si daanaka moo ngi ne cooboy ci réew mi wàllum wér-gu-yaram ak université yéenekaay bi di enquête nee na le pouvoir en face nag au front social boo xamante ni si fi ni tàng na jër ndax gaay naka mayeetuñu dara grève nag interne ak ancien interne ci hôpital yi ñoom ñëpp nag la ñuy sàkko moo di wàllum salaire ak ñu xoolaat seenu taxawaay si mbir mi nag ndax booba jàng di liggéey waaye amul benn statut boo xamante ni a naqarlu diggée yi nga xamante si booba léegi digg nañ ko waaye amul dara luñ ak ñoom violation texte ak réglementaire yi yéene kaay di agent collectivité locale yi ñoom ba nëgëni tamit ñoo ngi grève ndax boobu ak léegi la laaj kenn defal leen ko moo tax ñu ne naka xeex bi moom duñ ko bàyyi feek naka defal leen seenu bëgg-bëgg le quotidien yéene kaay di ko feelu te naan le front social en ébullition la fin de l'état de grâce yéene kaay bi ne syndicat de santé ak éducation ñoom annoncé nañ ay grève yoo xamante ci ci Ziguinchor yéene kaay bi ne foofee moom daanaka toolu xare lañ ko mujjee soppali ndax étudiant yi boobu ak léegi seeni bourse ak campus boo xamante ne dinaa pare liggéeya la ñu bëgg nag fi ñu doon dal di koy joyante loolee nag amul moo tax ñoom ñëpp ñu dal dee mer ba futu naka daanaka kenn xamagul fan la yem ñu yem ci libération wax ci mbirum Jérôme naka banque jege yéene kaay bi ne trafic de présumé nervi le dernier rebondissement bi nga xamante ne am na ci enquête bi lutteur boobee nag di bàcc ba yóbbu nañ ko ci diwan des jours laataa ñu koy écroué nag maanaam ne ko ràpp ci ba nag moo ko dal dee tudd tudd ko naka ci mbir mi nga xamante si jàpp na ne moom arme bi di ngànnaay bi mu yoroon moo ko dal dee jaay eh, Sokori Saka nag Sakori Ka ñu gën koo xam ci papis ñu nekkoon naka rakk ci ministre Doudou moom tamit arrêté nañ ko niki démb waa bip ñoo fa dal dee def njobootam naka di charme charme boo xamante si nee ñoo ko fintoon moom moomee deful dara waaye naka fekk nañ ci moom ay gilet pare ay munitions si takk na lool ñu fekk ko si këram kër gi ak kaw gi yéenekaay bi ne baykat bi campagne de commercialisation njëndum jaay gerte naka tàmbali na prix ba nag ñu ko fekk si ci benn fukk ak dërëm yéenekaay bi ne niki démb la ko ministre dal dee jël gannaaw waxtaan wi nga xamante ne si teg nañ ko am na ay dogal yoo xamante ne daanu ko jël ngir fexeel bu campagne boobee du am benn joote ndax bëgg nañ lépp jaar si yoon Ousmane Sonko ne bu sañoon naka jaaykat yi bu sañoo naka baykat yi jaayee téeméer naka waaye dafa fekk ni naka daanaka fintoon ni jëlee nañ ko fam nekkoon yokk si juróomi dërëm te nag mboolee matuwaay daanu ko si jël su ko defee nag am benn jafe quotidien ne njëgu gàtte googu nag dem na si 305 bi ne yokku la boo xamante si daanaka gaay soobu fooguñ ko woon waaye nag am na nag waaye nag gaay na bëggoon nañ lu ëpp loolu waaye nañ jël nañ ko ngir fexe rek ba joyante mbir mi ndax duñu nangu kenn koo xamante si dina jaare si kaw wala nga jaare suuf di yàq li nga xamante moo di njënd ak njaay gerte bi lépp li nga xamante jël nañ ko ci ay mesures nañu sàllo ak moom teg ko ci campagne campagne am bi mu def naka ngir wax rek mbir mi moom mbir mi neex na ci béykat yi ndax looy xool lum tuut tuuti tonne bi yokku nañ ci juróomi junne <laughs> loolu du dara de l'observateur yéene mu ngi xëy ñu nettali mbir mu doy waar nag ab gérante multiservice nekk foofu ca liberté 6 moo fa dal dee simuler ab agression gannaaw ba mu ne naka dañ koo réeral gannaaw ba mu ne naka dafa dal dee réeral lu tolloo ko ñetti million porte plainte ca police moo mujjee def jëf ji ba noppi naan dañ koo agressé sàcc xaalisam te loolee dara amu ca lamb Modou Lo lamb jooju nag moo ngi woy di dem nag ndax mbër ña ba ñu paree am na si ñu bëri ñoo xamante ni ñàkk nañ koppar yu bëri Siteu nag lu ëpp ñaari millions yoo xamante ñàkk na ko Modou Lo waxi noppi mu nekk loo xamante ni si dog nañ ko seenu ko payoor gannaaw ay avertissement yoo xamante ni am na ko ci lamb ji dog dog rek mbir maa ngoog ñoo ko déggandoo jàngeen jëf ba ëllëg